waaw pas comme xarum xarum moom mu ñu rendee tabaski bi hmm. de moom la ñuy jël hmm. bu ñu ko jëlee fam ba mu set hmm. ñu daal ciy bind iqara bismi taxaw foofu daal ci bind tur ki nga xam ne xelam naqari na iqara bismi waaw ñu taxaw foofu daal di ci bind aarona siise ci misaal yow miy def sa tur ngay def laa waxuma nga def aarona exemple rek lay joxe exemple lay joxe bu ngeen ma defee suba wax ah. <laughs> affaire bi ci man lay ñëw de <laughs> waaw xar mi bis biñ koy rendi ma ngi daan sopp nga tang am dox timale ko mu naan ba sigi waaw bu sigi nak xar euh, ci ndox mom ngay tang tuti denc ngir pak ba boko sendele ci tal bam xong nga sepp ko ca bam fay ba sedd nga jox ko ki nga xamanteni bi nga bëgg xelam neex su ko defé aruna benen bi ci top bu am solo bi moy li ni wax wextan waxtan waaw bi ci waaw moy kon jeexna bañ na ko ba olof da ngay dégg mu ne la wextan wextan bu ko defee da ngay dégg tamit bu mu rendee xam ni ba fees ko hmm. dangay ngay dégg ñu bu bu mu bu mu bu mu yàpp de xar léegi ñëw ci benn xar mu gumba xar ah. bu fekkee ne dem ci daral gi ñu ne la xar mii day jaay nga waxaale ba juboo nga bëgg xam gumba na wala gumbawut hmm. sa baaroom ngay joxoñ lu mu ko gën a jege rek nga xool xeefa nu muy def ak moom jeex na loolu yomb naa xam. waaw mi ngi mel ni nit rek. xam nga waaw teg ma xool dimbale ma rek. ma xool ba xam <laughs> maa gis <laughs> Arona loolu yomb naa xam. Eh. boo ko joxoñee. Hmm. su desee vingt centimètres xalam day xef. Hmm. waaw soo ko joxoñee. Hmm. mu des benn centimètre xefut. ragalal. ragalal bët bu sax. waaw kay. <laughs> mu loolu kon kiy déglu. boobu leer na muuma muuma gis nga xar bu fekke ne da nga doxé sa ginaaw japp ci way yalla ya mais seigne malik seigne malik ñew katan bokku na ci li sonol nit ñi mais bari na ño xamne nak ay sungu fa yooyu ñom buguñ ko naan te bëgg nañ seen katan ñewat waaw ah. ah, aroona ah. maanaam fii jamono toll li yàq bari kon li da da wara bari am lu tuddu lu ñu tuddé ndomba ndomba gàddu ndax mën naa koo gis. ndomba gàddu ngi ni moy li waaw sëñ maa li moom fu ñu koy ci nopp lañ koy lonko la ya gëna xam ne duñ ko dul lonk ci nopp <laughs> li may laaj ya gëna xam. gis ngeen ko rek ya. ngi ndomba gàddu. manam li ma def nak hmm. lu mu teele la. waye lay waral ma génn ko. Hmm. yaq yaq da bari. man kuma xam-xam ne ma publicité dara. Hmm. du sa mbir de. du sama mbir. déedéet loolu lu mo génne bàyyi ko xel. jar na essayer ku ku ku ku sa gisut. bu bul woo kenn nee ma la nga ma waxande gisuma ko. waaw. day dañ koy jaay dañ koy jaay ci awra lañ koy roof. awra bu bu sëggan fukki at. ndax dafa am benn boroom xam-xam bu wax ne li gën a doy waar mooy awra buy geesu. <laughs> kon awra daal day war a xool daa war a jàkk awra wuy xef baaxut. awra wuy geesu baaxut. te loolu lii yëpp bagage ya koy def. Hmm. mi ngi nii. kii day tax awra xool benn waaw waaw mi ngi nii léegi nag lii. tekkalewu ma ko mayewu ma ko. Hmm. dama koy wecc ko. Hmm? waaw man nag samay wax moom dama koy wax ju leer. mi ngi nii daal amul du sunguf sooy naan du sunguf lenn looy naan moom daal kim taanam daal neexute wax ndax jamono. moo mayatut wax ju wax ji yenn wax ji waaye kon buñ ko waxee ba bàyyi. da xam ne li ñu wax mooy moo leen daal képp ku néew kàttan ak kuy gaaw a yëg boppam. waaw saafara am na ci. kon jeex na bi ci topp mooy bi ci topp mooy. bu ko soxla nag woo ma ci 77. 568 80 80. Arona yaa koy jaay nag man jaayu ma ko. waaw yow yaa koy jox yaa koy jaay. te balaa koo kenn essayé yow yaa koy njëkk a essayé. man mi waaw ndomba gaadu kon mi ngi nii gàddu naa ci benn. waaw ndomba mi ngi nii gàddu naa ci benn. ko defee daal ñaari daal indi nañ leen ko muy émorite. Hmm. ak ndomba gaadu. mais bii bi eh, ndomb gi xawut a rëy tuuti. bu ci nekk rek am na pointure am na pointure am. 77 568 80 80 ndomba gàddu gàddu naa ci benn ku ko bëgg mu ngi nii kattan moo ko tax a jóg képp koo xam ne yaa ngi war a jaxasoo sa soxna ci awra wi nga koy roof. ak Senvision.com la crédibilité notre credo.